asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi nuy seetaan te di nu déglu ñoo ngi teew fii ci kër borom daarul moxti gannaaw bi nga xamante ni bii jot nañu ndigal ci Cheikh Muntaxa Mbakke moom mi fi toog toogaayub ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ak Serigne Abbas Mbakke mi toog toogaayu borom daarul moxti moom it nuy ñaan sunu borom yàggal ko fii te wéral ko eh, li waral nag teewaay bi mooy waajal bisub màggaluk soxna Fat Issa Diop ci Thiéyeen waaye waajal ñaanuk jàmbaar ji nga xamante ni képp koo xamante ni jariñu nga ci Thiéyeen wala nga jariñu ki soxna Fat Issa jóob dana ci jot wallam muy Serigne Fallou Assy Dieye mi nga xamante ni bii moo wone soxna Fat Issa Diop màggaluk soxna Fat Issa Diop ñaanuk Serigne Fallou Assy Dieye kañ lay am gaawu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars lay am ci Thiéyeen Jolof Eh, di soññi mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju fédération soppay soxna Faty Issa di soññ itam daayira aju ci biir kër Serigne Rawa Balla rawatina yi nga xam ne ñoo aju ci biir kër Serigne Fallou Asta di soññi yit mbokki jul yëpp ak mbokki taalib yëpp di soññ itam daayira bi nga xam ne moo féete bitim réew te di fa taxawal bi soxna Faty sa ci turu Modou Kara Diaw ak soxnaam Adama Babou di soññi itam Serigne Malick Ndonga mi nga xam ne moo féete ci Brescia di soññ itam mboolem bi yi nga xam ne ñoo aju ci kër Serigne Fallou Astou Dieye ci njiitalu sëriñ Bayka mi nga xam ne Serigne bi moo ko fa tegoon mu nekkoon jawriñ bi fi Serigne bi jógee njabootu Serigne bi wéyalaat ndigal loola mu ànd ko itam ak Alaaji Mafal ak Basirou Sall ak mboolem taalibe Serigne Fallou Serigne Mouhamadou Mbacke moom Serigne xalit ak daayira bu Islaahu Daarayni bi nga xam ne moom la jiite di soññ itam daayira daara Jatme bi nga xam ne Basirou mooy ànd ak ñoom at mu nekk di fa jiitu ji ñu fas yéene dem fa yàlla jiitu ji def ko nañu ko daan defe wasalaamaaleykum wa rahmatulahi la wa barakaatu. ñuy wax nag ci kàdduk sëriñ Basiru mi nga xam ne <coughs> mooy sëriñ Fallou Assou Dieye mu jox ñu ndigal ngir ñu woote màggal gi nga xam ne mooy màggaluk Ceyeen eh, ak ñaanuk sëriñ Fallou Assou Dieye màggaluk Ceyeen nag mooy dëkk bi nga xam ne sëriñ Touba <coughs> bi mu jógee gànnaar fa lañ ko yóbbu fa la woo soxna Faati Isa mu génn fa àdduna mu dencal ko fa boppam ndax ñaar moom Serigne Soxna Fatou Issa am na ko Serigne Touba yoo xam ne kenn amu ko mooy koo xam ne Serigne tubaa jël na ko ci loxoom denc ko ci biir suuf ak it jël doom tudde ko ko tey mbokk di yëgle nag bis bi ñëpp di ci jiital nag Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne Touba ci kaw suuf di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér di di ci teg Serigne Abbas mi nga xam ne mooy borom daaru moxti liggéeyam yi mu tàmbali di ko liggéeyal waajuram ak sëriñam ba di borom daaru yàlla na ko àggale ci jàmm te mu ko di teg sëriñ Moustapha Absa mi nga xam ne mooy suñu kilifa te jox sëriñ ba Basiru ndigal ngir mu def bis bii di ko yëgal tamit ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Macky Sall di ko ci woo di ci woo Mouhamed jonn mi premier ministre di ci woo assemblée nationale Moustapha Niass di ci woo Ousmane Tanor Dieng di ci woo Aminata di ci woo it nag ministre de l'intérieur Aly nga xam ne foofa la dëkk sëriñ bi wax ne nañ ko ko yëgal ak ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne ñoo bokk dëkk foofu ñoo ngi ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn nag ku dégg lii daal na nga xam ne lii mooy suñu bis ñoo ngi la ciy woo bëgg nañ ñëpp ñëw ci ñoo ngi ñaan yàlla nag bis bi agsi ak jàmm ñu dem ci ak jàmm dellusiwaat ak jàmm sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo niy déglu te aju ci borom daaru moxti wala ñu aju ci yoonu murid rek bu nu neexee mën nañoo wax loolu ci turu sëriñ Abbas mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty te euh, bis bi euh, bokk ci bis yi nga xam ne yi ko gën a ñor la bokk lu waral loolu mooy li nga xam ne kilifaam sëriñ Mamadou Awa Balla sëriñ Abdul Xuddo sëriñ Cheikh Addi daanañu ko wax ci bis bi jagleel ko sëriñ Fadlu te moo di barab ba dafa nekk barab boo xam ne lépp lu yëngatu fii barab boobee moo tax mu yëngatu kon kenn ku nekk war na ko bàyyi xel bu baax a baax muy royukaay boo xam ne du caagéen rek dañuy dem ca yéen ngir ne nañu dem ñëpp a ngi dem déedéet da ngay dem yóbbaale sa pas-pas innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imrin maana nawa li nga xam ne moom ngay fas yéene wuti ca yéen moo di kefatëdd mooy kan moo di soxna Faati sa Jóob lu ko fa yóbbu mooy Sëriñ Tuubaa ba mu koy yóbbu ba mu koy yóbbu ci yéen ba mu ko foo wooyee fàttaliku na la nga xam ne moom la seqoon nag moom ñu wax ko waxati ko loolee nga fas yéene yooyu itam booy dem bu fekkoon ne euh, ak bagaan nga yor nga duy ko ba mu fees na sa pas-pas toll rek noona moon say ndab ya ngay duyee noonu lay toll su ko defee nga fas yéene roy ci dund ko ba waxtu wi dellu siwaat déwén nga dellu yeesalaat ko ndax yeesal dafay baax ci lu nekk nag bàyyiwuñu kenn woo yoonu murit bay wuñ ci kenn woo képp ko yaakaar euh, borom daaru moxti ndax Serigne Abbas dafa jàpp ne lépp loo xam ne euh, dafa aju ci borom daaru muuti fuñ ko fi yëngale fu nekk lu fa war moom la war luñ fa war a wax moo ko war a wax luñ fa war a def moo ko war a def te noonu nga xam ne nii la ko jàppee bis bii dafa bokk ci bis yi nga xam ne li li ñu waxoon ci njëlbeen lu yëngatu lu nekk moo ko yëngal bu amutoon loolu du am kon nag ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom may nu àgg ci ak jàmm. ci turu Serigne Moustapha moom sëriñ Modou Awa Balla ak njaboot Serigne Modou Awa Balla gépp di woote ci turam ci turu njabootu sëñ Modou Awa Balla gépp euh, bis bii nga xam ne ñaari bis la ci sëñ Moustapha muy euh, maam Isa ak sëñ Fallou euh, ci loolu ñu ngi soññi daaray alquran yi. daaray kaamil yi ci ñu jàng alquran ak fu waay mën a nekk ak loo mën a jàng ci xasida wala salaatu ala nabi nga def ko euh, jox ko addiya njabootu sëriñ Tuubaa googu di Maam Faati Isa di sëñ Fallu euh, Asa Jéy ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo jiitu loolu sëñ bi nee na woon nañu wax ko euh, mi ngi wax sëñ Cheikh Bombali itam moom sëñ Mbàkke Madina ne ñooñee fay ñëw njabootam lañ waaw ndax euh, sëñ Mbacke Madina ci ñi maam Faati Isa meññ la bokk. ñun ñëpp yabal nañu euh, tàmbalee ko ci euh, sëñ Bass mi topp ci moom ba taalibe bëgg na tuuti ñun ñëpp jox nañu ndigal ci ñu taxaw ci liggéey bi ànd koog waa kër sëñ Fallou yi wéttali leen jàppale leen bokk ak ñoom liggéey bi ba liggéey bi sotti ni ñu ko bëggee yàlla na yàlla defee ko noonu. wasalaamullahi aleykum wa rahmatun minhu wa barakaatu. mbokk yi kon bis baa ngi noonu. gaaw fukki fan ak juróom ci weeru mars deux mille dix di bis bi nga xamante ni ci la ñuy ñaanal jàmbaari Cheikh Mamadou Hawa Balla ja di Serigne Fallou Assé Dieye waaye ci la ñuy màggal itam soxna soose nga xamante ni li mu am ci Serigne Touba wéet na ca lool soxna fat Issa job rek moom la ñu xam ci ku Serigne Touba tudd kenn ci ak njabootam muy soxna Diop Mbakke soxna Fatou Issa Diop moom la ñu xam ci ku Serigne Touba nangu ci bàmmeelam muy soxna Fatou Issa Diop waaye nag. ñetti dërëm yi nga xamante ni Serigne Touba mooy soxla si mu njëkk a am ndax ab naar moo ko joxoon ay téere mu warlu ci ñetti dërëm te ñetti dërëm ya te ko soxna Faat Issa Diop bi Serigne Touba àndee ak borom Daaru Muuti ak ma samba job Sam wër réew mi yëpp amuñu ñetti dërëm ñetti dërëm yooyee soxna Faat Issa Diop moo ko fayal Serigne Touba. mbokki taalibe yi mbokki jullit yi kon ci yéen a ñi ngi fay woo ñëpp di ñaan képp ku fa teew lépp loo fa sakku yal na nga loolu ci darajey ku tedd ka xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba darajey soxna Faat Isa Diop darajey borom daarul moxti wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu